salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum chers fidèles internautes bu saalum Actu mbégte lay doon saa su ne jàkkaarloo waat ak yéen eh, ci ci la chaîne leader di saalum Actu point com tey nag ñu ngi fii ci Kër Massar parcelle Assainies unité 6 ñëw tewee si ubbiteg juma bi ñuy amal fii nii koñ bi di parcelle Assainies unité 6 waaye tamit ñu ngi jàng alxuraan suñu ginnaaw ñun ñëpp ñoo ko gisandoo laata loolee des leen di wéy ci suñu programme mu Saloum Actu dinañ leen dégtal xutbak imaamu ratif bi eh, ñu jublu ci jumaa gi kàddu gi jox ko imam bi nga xamante ni moom mooy jiite fii lay ci jumaa bi di jumaa Parcelles Assainies unité 6 euh, des leen si suñuy programme ak Actu jërë ngeen jëf di leen baalu ak di leen baalu ak ñaan yàlla yal na yàlla boole jéggal ñun ñëpp ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàkk ji dafa am bés boo xam ne dafa spécial ci ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci jàkk ji ak waa koñ bi maanaam dama bés bi tey bés dañ koy sant yàlla ci coono bi nga xam ne koñ bi ak jullit ñu baax ñi waa dëkk dëkkandoo yeeg ñépp sonn nañ ko ci jàkk ji baax ay at ñuy ñelwaan am ñu ñuy sarax ay ton ñaari ton ñii xaalis ñuy defar morgo bi ba morgo bi pare ñu yéene mbaar male ci gannaaw nga xam ne daara la ak jàkkaay jigéen ñi ñu ciy sonn di ci sonn ba am ay jullit yu gis ne daal ñoom yàlla may na leen wërsëg ñu ne nañ ñëw dimbali jàkka ji ci loolu ah bu ñu defalee loolu nag bu tey bës bi jaadu na ñun ñu waa koñ bi yépp ñu tase fi sant yàlla feneen suñu mbégte si ñi nga xam ne ñoo def loolu ah, loolu nag bu amee xat waxtu bi dafa xat bisu àjjuma la waaye Imam Sall nga xam ne suñu jarbaat la suñu lépp la di xale boo xam ne ku yàlla may xam-xam mu ànd ak yar mu bokk ak ñun jàkka ji ñii nga xam ne ñoo ko féete mag nekk ci jàkka ji yëpp mu def leen jur ku ci mel ni man nag amul ak man fenn fu mu yem man li muy diisoog man doom yi ma jur sax duñu ko diisoog man te loolu eh, de mag ñi dañ daan wax ne ndaw bu amee xam-xam bu àndul ak yar benn mag du mën a dend ak moom kon nag yàlla musal na ko ci loolu ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla gën a musal ci loolu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, dañ na woon nag tey programme mu tey bii comme ni ma ko waxee ci commencement bi mooy sant yàlla la wante nag du tere moom mu yëkkati ay kàddu fii ba julli di jot bu nu jullee incha allah imaam Yusufa Ndiaye su fekkee ne dara aaru dara do gàllankooru ko mu jiite julli gi imaam imaam yi jàkk quartier bi yëpp a ngi nii imaam Mohamed Kan mu ngi ni toog oustaz imaam Sall mu ngi nii toog imaam Camara dafa ne moom bu fekkee ne amul ku ko wuutu ci jumaam bu sëlmale rek incha allah dina jubal fii bu amee ku ko wuutu ci jumaam nag moom dina jullee si fii ah, su ko defee ñu jox imaam Yusufa Ndiaye mu jiite julli gi bu ñu paree ñu fii trois 3 heures bu soobee yàlla ñu ñaan yàlla yeewi nit ñi ñu dellu seen fa ñu jóge woon ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon damay jox imaam Sall muy mu mu yëkkati kàddu gi imaam bi alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di bokkandoo mbégte mi ak mboole mi jullit yi nga xam ne ñu ngi teew ci sant yàlla bu baax a baax a baax ci boole gi ñu yàlla boole ci benn buum benn téere benn néeg benn diine ci benn yonent sallallahu alayhi wa ñu àndandoo ngir di daje di jaamu borom bi subhanahu wa ci nim ñu ko sante ñu ñaan yàlla mu dimbale ñu defin wi rafet te yàlla nangul ñu jëf ci tey nag ni ko imaam loo waxee tey bisu sant yàlla la ci mboolem jullit boo xam ne toq leeru imaan mu ngi ci xolam bu gisee benn image boo xam ne euh, jumaa bu mel nii lay xool day kontaan ndax jot nañ ci façon ñaan bu ne ñaan bu ne façon ñaan bu ne rek jot nañ ko ci ay ojo am na ñoo xam ne fa ñu toll ñu ngi ñaan ndax kontaan gu ñu kontaan ci ñi nga xam ne ràññee nañ ak ànd ak ndimbalal yàlla ci fi ñuy def seen dërëm xam nañ ñu bari ñoo xam ne saa suñu xëyee wala ñu gont ci lu naqar yàlla lañuy xëy ci lañuy gont te ay nit dañuy jël ay milliards di di leen ko jox di leen financer ngir ñu am moyen yu ñu mën a defee seen liggéey bu ñu bëgg a réew mi day yomb lool ci ñoom bu ñu ñëwee fépp fu ñu wootee alal ju bare bare len fay fekk ay kër ay oto ay milliards wala ay millions centaine de millions ngay dégg bu dee sax dañoo dajee fu mel ni ci euh, bërëbu foowekaay yi da gis kuy maye ay millions yu bare bare bare bare ñu am benn mbokk mbokk jullit boo xam ne dafay jaayante ak borom bi subhaanahu wa taala yëg ne fii néegub yàlla la audience bi yàlla di seq ak jaamam ajjuma bu jot waxtu juróom bu jot fii benn la ci euh, place yooyu moom mu tànn ne népp lépp loo xam ne daf koy daf koy rafetal lépp loo xam ne daf koy rafetal lépp loo xam ne daf koy baaxal daf koy ñoŋeel incha allahu taala moom dina jël wërsëgam ak képp koo xam ne rek am nga yéene mu ngi lay dugalaaleel sa loxo mu ne laajul kenn dërëm waaye moom nañ ko bàyyi mu def kemtalaay kàttanam ci taaral néegub yàlla bi subhaanahu wa taala yëg nañ ne ay millions yu bare bare bare bare bare bari def na ko ci ànd ak ay gàllankoor yoo xam ne jaaroon na fi ku ne gis na ndox mi ni mu defoon juma masjidu saxaaba bi ak yeneen i jàkka ñu jël seen matukaay taxaw ngir dundal ak dooleel li nga xam ne mooy néeg boobu di néegub yàlla bi moo tax ñëpp ñoo ko war a njukkal waaye ñun ñëpp la ko defal parce lu tax mooy masjidu masjidu nabi sallallahu alayhi wa sallam tollu woon nañ jamono dafa xatoon lool yonent bi sallallahu alayhi wa gis ay terrain yu wër jàkka ji ñu war koo jaay wala ñu bëgg ñu jaay leen ko yonent bi dafa woote ne ana kan mooy jaayanteeg yàlla jënd terrain bi nga xam ne famille diwuñoo ko moom ñu yokk ko ci néegu yàlla bii fayam nekk aljana Usmaan ibnu Affaan dafa jaayanteeg boroomam jënd ko wuutu ci képp koo xam ne amoon na yéene ngir liggéeyal diina lislaam loolu ba léegi jullit yi ñu ngi koy def yàlla nag kum narta fay du la liggéeyloo kum nara fay itam dina la liggéeyloo am na ñoo xam ne ci seen yéene la leen di liggéeyloo am na ñoo xam ne ci seen doole la leen di liggéeyloo am na ñoo xam ne ci seen xam-xam la leen di liggéeyloo am na ñoo xam ne ci seen alal la leen di liggéeyloo waaye di nga gis koo xam ne amul milliard amul million wante heure bu ko yàlla soxlaa ci néegam walla ci bërëbam mu bàyyi lépp lum doon def xëy ci gont ci da ci coono bu nekk ngir ñu ñu am li ñu bëgg kon bisu tey bi bisu sant yàlla la rek sunu kilifa imam Mouhamad Kane nga xam ne imaam yi nekk parcelle Jaxaay yëpp fii ci commune bi moo leen jiite mu ngi nii toog di kilifa goo xam ne boroom xam-xam la ku oyof la ku ku ku mën a dimbale doomu aadama ci yaram ngir mu amuk dal ba mën a jëflanteeg képp ku mu jàkkaar lool lu ñuy jàngale ci moom lu bare bari eh, eh, imaam Sall ñoom sunu mag lañu ay kilifa lañu ay boroomi xam-xam lañu nga xam ne. boo koo ci dajeel da ngay yëg ne am nañ sax am nañ sax yërmande ci suuf si nga xam ne moom lañuy teg seen tànk ngir dox bu teey wax ju teey jëf ju teey ak jikko bu rafet sunu royukaay lañu ñoom kilifa yi nga xam ne ñooy nekk ci sunu kanam guddi ak bëccëg am na ay kilifa boroomi xam-xam yu fi teew boroomi daara ku ci mel ni imaam Ibrahima Ngom di kenn ci ñun daaraam yépp la vidé ne nañu dem ñu jàng ci kaamil yi nga xam ne dañ koy sante yàlla di ñaanal sunu waay ji nga xam ne def na lu ne pour rafetal néegub yàlla bi mu amoon ay gàllankoor ci ndimbalal yàlla yàlla matal nuñ ko bëggee woon ba kawe suñu njort keroog bi ñuy def bi ñuy dem di uti sax moket di laajte ji prix rek benn waay bu baax boo xam ne dëkkandoo la di lay xamal ne senegal ñi baax ñi bari nañu ñun ñi ci kanam ñoo war a changer comportement bi ñuy àndee ak jullit yi ngir ñu mën a génn ñu ñemee génne seen alal di ko jox yàlla buñ koy jox yàlla dafa am fu ñu koy jaarale kenn ku nekk rek koo dajal rek jàpp ne jàppal ne am na yéene bu raw bi nga am yow jàppal ne itam amaana moo la gën mbokk moomu dañ doon laajte ji prix rek ñu woo ko téléphone man maa ko woo téléphone ne ko fi nga jëndee seeni mokkeetu juma dama bëgg nga orienté ma foofu ma dem fa. mu ne ma foo nekk ma ne ko maa ngi Dakar mu ne ma xaar ma ma ñëw dafa taal otom fekk ma foofu yëkkati 2 millions teg sama loxo na ma imam maa ko jàppee ci moketu jumaa ji kerek lañu mottali la ca ca des jënd moket yi ñëw ma woo imam loo nga xam ne keneen la ci man comme ni mu ko waxee rek kilifa yaa ngi ni toog xam nañ bu baax baay ba mii noonu ñoom njaay ñu ngi fi ñëpp a ngi fi délégué ñoom nga xam ne seen taxawaay man mënuma xam tolluwaay bi ci seen yéene bu rafet yàlla dimbale ñu ba keroog lañu ñu jënd moquette yi indi ko bi ñëwee ñu leeral kilifa yi ne leen diw yëkkati na 2 millions dimbale ñu ko ci moquette yi na ñaar imaam loo am ku mu àndal ñu dem ba këram sant ko bi mu yëgee ne dañ fa bëgg a dem daf ne jarul ko yàlla rek a taxoon mu koy def kii nga xam ne it mooy yëkkati alalam def ba ba ba ba ku ñëw rek dina xam ne lii alal ju bare fi nekk euh, wax dëgg yàlla bëggul sax kuy tudd tëram wala ku naan ko jërëjëf moom la ma waxoon rek bu ko yàlla xamee rek nangu ko doy nañu amatuñu leneen loo xam ne moom la ñuy xaar ci keneen bëgguñu ku ñu sant bëgguñu ku ñu gërëm yàlla lañ war a defal moo ñu jox wërsëg bi buñ ko ko joxul def ko feneen buñ ko ko joxee am ci tiyaabo buñ ko defee feneen am ci duma kon bàyyi leen rek ñun ñu jéem sunu kemtalay kattan incha allah waxtu julli bi dafay jot ni ni ko imaam ni ko imaam ni ko imaam di waxee ñun ñoo am xelaat bu ñu am ci sunu biir imaam yépp bu ñu àndoo nekk benn message bi day day jàll yegg fa mu bëgg a dem imam yépp bu ñu xamante àndandoo mission bi leen yàlla nattoo ndax nattu la boo xam ne nattu gënu koo diis ma ni ma koy firee nattu imam nattu gënu koo diis ñu xam ndax nattu la walla pouvoir la am na ñu ko ràññeewul yàlla nañu yàlla dimbale ñu xam ne nattu la ñu bëgg a seet benn système boo xam ne lu baree bari dañ koy sanse ci ci ci maydaan boobu mooy jumaa jiide dee tudd masjidu sahaaba dafa ubbi ay buntam ci képp koo xam ne rek boroom xam-xam la ubbi nañ la bunt amuñu xaj amuñu seen beneen bi mooy ni imam sàll di jiite noonu lañu bëgg imam sàll mii di fi jiite ci jumaa noonu lañ bëggee imam Kamara di fi jiitee ci jumaa noonu lañ bëggee imam Mouhamad Kan mii imam Ibrahima Ngom di fi jiite ci jumaa ak keneen ak ñeneen ak ak ñeneen ak ñeneen loolu dañoo bëgg jullit yëpp jariñu jullit yépp jariñu loolu nag ñun lu ñuy waxtaanee la suba ak ngoon guddi ak bëccëg ndax imam loo rek bu fi nekkee ak imam Sall léeg-léeg imaam Sall yàlla mën na ko natt mu tawat imam yàlla mën na ko natt mu génn bu boobaa ñun dañuy am problème loolu nag kon teela tasaare sembaan gi ba nga xam ne ñun du ñu am benn jafe-jafe te li ñu dimbale ci loolu ñun mooy ñun. yaakaaruñu dund ci jàkka dañoo yaakaar dimbale jàkka ci anam yépp ndax dafa am lu ñu yitteel mooy kóolute gi nga xam ne ay doomu aadama nga xam ne kenn ku nekk ci ñi la ko dénk manees na koo taxawee bu ñu amee kóolute ak confiance jox la da yaatal ba kenn ku nekk gis ci njariñ lum fooguloon kon julli dafa jot bu ñu jullee ba pare imaam Mohamed Kane imaam Camara imaam Sall ñu ngi nyom ñoom ñëpp kenn ku ci wax rek imam yep la waxee bu ko defee ñu li ci des ñu tënk ko mbokk yi ñu ngi leen di gërëm waaye itam imam lo xatmul quran bi waaw waaw quran bi dañuy wàccee juróom benn kamil sànq ci ginnaaw dañ ko def nag ngir sant yàlla ndax bu ñu ne li fi dajale ñaari mbir la mooy daara ji tudd daara xisbu rahim Cheikh Abdoulaye Sall ak masjidu saxaaba ñoo maase xale bi njëkk a ñëw ci daara ji bi ñuy ubbi jàkka ji la ñëw la ñëw ci daara ji ak ñu ngi sant yàlla ren ji ñuy wax ak yéen incha am nañ juróom-ñeenti xale yu mokkal ci daara ji war nañ tari lum gàtt gàtt balaa tabaski incha allah daaw am na ñu fi tari daaw jéeg am nañu fi tari noonu nag la ñu àndee ak jullit yi ñuy ñaan yàlla ñëpp dugal seen loxo ci ñaari bërëb yi ñun lool rek lañu am muy jàkka daara ji ku yëg jàkka daara ji yég nañ la ku yëgul jàkka ji ak daara ji ñu ngi lay ñaanal yàlla nga am yaqin bu ñu paree incha allah ñu tëjaale kaamil yooyu euh, xatmul quran mi ñu ñu ñu jàng ko dinaa jox imam loo ñaari mu nag la ñuy jàng dafa am yéene bu ñu defoon. benn bi imam loo daf koy jàng incha allah benn bi dinaa ko séddee sama jarbaat muy Seydina Omar Dramé nga xam ne mu ngi yor internat bu mag fii ci Sedima nekk sunu jarbaat mu ngi nii ci ginnaaw lu tax moom ci toolu alquran bi lay lay yëngu Insha allah ñu defal ñu xatmul quran bi. am yusuf mu pare imam taxawee rek rek. bàyyi ñu taxawee fii te gaawee ko ñëw incha allahu taala. cant gi ñuy cant ñi ngi sant ñi nga xam ne ñoo jël seen am-am def ko. imam Saïd ay fan yu néew ca ginnaaw buñ ko waxee ay weer dama jàpput korite la xaw ma tëbaski génn naa di ziyaare ay mbokk waxtu timis jot ma jullee fii bi ma jullee ba pare moom sax taaxirlu na ma comme dama su ma jullee am na ay askar yu may faral di def buñ génnee dañuy jéggat ndox mi mu metti lool ma ne ko imam Saïd ma ne waaw yàlla de xam na ne am na jaamam yu mën a saafara lii ñu ngi koy ñaan ci mbaaxam yal na indi jaam yooyu ak seen kàttan ñu saafara ko sant yàlla biñ ci demee matut weer imaam Saïd ne ma ah, yàlla dogal na am na jaamu yàlla ñëw di koy defar ba mu paree it woo na ma bi mu wooyee dama bég ba ne ko xaar ma ci jumaa ji maa ngi ñëw duma ko wàcc ndax man dama ne lu baax fu mu nekk rekk man maa ko war a def su ma amul kàttanu def ko nag ku ko def man nga ko defal kon nag war naa see sant gërëm waaye li ma gën a neex si defin bi imaam nettali na ma ko mooy taawun bi nga xam ne dimbalante nag ñépp jokkoog ñépp ak na muy jaaree na muy jaare ci imaam loo ba si njaay ak mbokk yi ma lool nag la yàlla santaani woon wa zawirhum fil amri fa ida azamta fa tawakkal ala kon mbir mi doxalin bi rafet na ñoo ngi sant imam loo ak nekkul la defin beeg coono bi yëpp mooy jàkka taxawal jàkka a ah, di ci ànd ànd fi daje fii ngir sant sunu borom ci jàkka ji nga xam ne nii néegu yàlla bi nga xam ne nii sama borom bari nañu ba mu taxaw nekkul lu tuuti lu rëy la imam wax na ko ci xutbaam ahabu biqaayil ardi goox yi nekk ci suuf si yépp fa ci gënal yàlla mooy jàkka moo tax borom bi subhanahu wa taala néeg bi mu njëkk a taxawal ci kaw suuf mooy jàkka awwalu baytin wuddi'a linnaasi lallazii bi bakkata mubaarakan mooy kaaba gi wala ma u taarix ne ñii ne Adama moo ko taxawal moo def fondation bi waaye am na ñoo xam ne daa koroon ci ñu ne Adama dafa ñëw fekk fi fondation bi malaayika yi ñoo def fondation bi ibrahim moom da koo yëkkati rek da koo yëkkati rek wa id yarfau ibrahimu alqawaida min albayt wa ismailu rabbana taqabal minna ba aaya ba mu jeex ismail moom mook ibrahim ak doom ji ñoom dañoo yëkkati fondation bi kon jàkka ne ko lu tuuti ki nga xam ne nii moom mooy sunu royukaay yàlla joxuñ ñu joxuñ ñu ñu war koo roy ci lépp muy sayiduna muhammad imam wax ko ci xutbaam bi mu demee madina lam fa njëkk def mooy taxawal jàkka ci masjidu Quba bokkul ak jàkkaay boppam am fa lu ma 13 jours fukki fan ak départ dem avant muy taxawal këram taxawal na jàkkaam ba pare fab këram ko ci ji ngir jàkka bañ koo sori buy génn kër gi buy génn néeg bi di dugg ci jàkka loolu ci la ko sunu mag ñu baax roy mm-hmm. sunu mag ñu ñi nga ñun ñoo leen wutu ci mission lislaam bi ak ci mission société bi roy leen ci loolu commencé ko ci xaali Omar Fall ak almaami yi nekkoon Fuuta wàcc ba ci Seex Omar Fuutiyu maam Borom Touba Seydil Haaji Malick maam Alaaji Abdoulaye Niass mag ñu baax ñëpp fu ñu dem fu ñu nekk fu ne fu ñu fu ñu dëkk balañ faa def dara dañuy taxawal jàkk ba pare bala ñoo bëgg ñuy kontaan dañuy gis ni néegu yàlla bi taxaw na daf leen di jaral lu ne ñu bari dañu yaakaar ne dañ koy def ngir daraja wala ngir leneen waaye déedéet ngir roy sayyiduna muhammad la sallallahu alayhi wa sallam bu ko defee kon lii nekkul lu tuuti li ma ciy teg mooy jàkka taxawee jàkka ak taxawal jàkka taxawee ko mooy di ko toppatoo di ko dundal di ko liggéey ak ñi nga xam ne ñooy rot ci jàkka ji itam am ci ñoom yitte di leen di taxawee bu baax tàmbale ko ci ilimaan loolu amul liggéey bu ko gën a tedd ci yàlla ñaari xeet yi nga xam ne taxaw nañ ci lis taxaw nañu ci kaw suuf mooy xeetu sayiduna muhammad ak xeetu yonent yàlla isa li leen taxawal mooy jàkka sittu mariam di soxna maryama li mu am fan la ko amee ci jàkka ci jàkka ci la yonent yàlla isa feeñee soxna hajara mi nga xam sunu maam hajara mi nga xam ne mooy maamu muhammad moom fan la fan la dëkkoon fan lañ ko dëkkale woon ca Kaaba ga ca jàkka ja moom moo doon taxawee jàkka ja mooy Kaaba gi di ko toppatoo ba la doom ji dëgër di ko jàppale ci liggéey liggéey boobu mission boobu ba bésu tey famille boobu ñoom ñoo taxawee Kaaba gi loolu barke boobu ak leer googu ci la Sayyidina Muhammad feeñee bu ko defee nag kon taxawee jàkka. dafay yëkkati aw xeet waxuma ne dafay defar nit ki rek mais aw xeet ci boppam lay defar day yëkkati aw xeet xeetu Seydina Muhammad ni mu yëkkati ko xeetu yonent yàlla Aysa mooy nasaraan yi ni ñu yëkkati ko taxawee jàkk itam noonu lay yëkkati ko boo ko bu fekkee ne def nga ko saw xeet fi nga bokk ko kon nekk lu tuuti lu rëy la ah jàkka ji nag tur wi rëy nag ñun bëgg nañ ci tur wi te itam tur wi yéem nañu lool mooy masjidu sahaba masjidu sahaba ndax tur dafa am solo Seydina Muhammad dafa fonkoon tur ah yéen ñëpp jàngkat yëpp xam nañ ne sahaba yu bari yu tuuboon duggoon ci lislaam te ñoo amoon yenn tur yu garaaw yi rasulullah da koo sensé lu mel ni xarbu xarbu mooy guerre yonente bi soppi ak yu mel murra weex yonente bi soppi bu ko defee kon tur sallallahu alayhi wa daf ci daan gàtt nga woo kon nag buñ ne turu sahaba yi masjidu sahaba a ah, kon ñi dëkkee ci goox bi kon nga xam ne ñoo méngoo mbiru jàkka ji ay saxaabatu rasul lañ bi maanaam saxaaba yi la ñuy roy jikkoy saxaaba yi itam moom la yore melokaanu saxaaba yi la ñuy yore te itam loolu ñu ngi koy gis ndax imaamu Saïd mi dañuy waxtaan mu di ma wax waa jàkka ji seen taxawaay seen yitte ak seen bennoo ak seen ànd bu rafet rawatina mu di ci mu mu ràññee ci bu baax imam loo sant ko bu baax gërëm na ko ay yoon dégg naa ci kàddoom muy wax ci moom mu wax ma lu rafet ci imam loo mi xam-xam bi mu am ak ni mu wàccee boppam ni mu effacé boppam daraje ji ak lépp mu jox ko imam said sàll def ko muy kenn ci njabootam uuf ko yiir ko di ko jàppale bu baax di ko dimbale bëgg la feeñ ci lenn daf ma koy wax wax na waxtaan nañ ci ay yoon ni mu mel noonu la ñu bari ci waa jàkka ji mel mu nekk ñu nekk ñoo xam ne dañoo dañoo dañoo wuyu turu sahabatu rasul bu ko defee kon loolu nekkul lu tuuti lu rëy la moo tax ñun tànk association bi yore imam ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk ah ñu ngi leen di tiitaroo ñi ngi tiitaroo gox bi ak ñi fi dëkkee ñu ngi leen di tiitaroo bu baax ñu ngi tiitaroo itam jàkk ji di ci bég di ci kontaan waaye imaam Saïd Sall mi itam nga xam ne da ngeen a fab yëpp teg ko ci wóolu ko imaam ak yi ngeen teg ko ci loxoom ah juumu leen ci dafa mel ni sama borom moo leen tànnal. mbokku Saloum Actu beneen yoon ñu ngi waat ak fii ba tey Kër Massar Parcelles Assainies euh, unité 6 ñu ngi toog ak suñu yaay soxna Ndeye Ndiaye mi nga xamante ni ñoom mën nañ ni ñoom ñoo yore wàllum set setal jàkka ji yaay booy lan ngay wax ci mbég mi nga xamante ni lislaam yëkkatiku waat na lislaam amaan na ndam mbégte bi nga xamante ni yéen waa yi yeewoo ci diwaanu Kër Massar am ngeen ko tey. auzu billahi mina shaytaani rajim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sant suñu ñaari way jur sant suñu borom kër ñu ngi sant quartier bi yëpp suñu góoru quartier bi ñu ngi sant ñëpp mag ak ndaw góor ak jigéen macha allah bàyyiñu kenn ndax yàlla daf ñoo may ay góor ñu baax ñuy sunu ay borom kër di suñu ay doom teg ñu ci yoon ndax ñoom ñoo waral lii ndax ñoom seen yitte yëpp mooy àndandoo xàccandoo dóorandoo bëgg jàkka jàkka mooy seen àdduna ñu nàmpatal ñu ci nàmpatal ci sunu njaboot kon loolu ñun dañ ciy sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant ñëpp nag bàyyi ñu kenn góor jigéen mag ndaw délégué quartier yi bàyyi ñu kenn rawati nag sant gi nag ñu koy beral suñu imaam loo ak imaam sàll ndax ñooñu ñoom ñun mënuñu leen a fay dañ leen di bàyyeeg yàlla yàlla mi nga xam ne moo am fay te ku mu fay mu kontaan yàlla na leen yàlla fayal boppam. ndax ñun ñii di jigéenu quartier bi di nga xam ne ñooy seen ay soxna ñoom ñoo ñu dooleel ñoom ñu jiitu rek ñu ñu topp seen ginnaaw lépp lu ñuy def danañ ci woo waxtaan ci ñun xàccandoo dóorandoo ñu nekk seen ginnaaw tubaarkàlla ñu yombalal ñu lépp oyofalal ñu lépp te àdduna bi képp ku la woo. ci yàlla kooku desalatoo ko dara ndax àdduna bi tolluwaay bi macha allah ku ne gis na fi mu toll waane imaam Lo daal ñu koy sant bu baax di sant imaam Sall bu baax sant goo xam ne am na tàmbali waaye amul yemukaay ndax imaam Sall daal li ñu réccu ci moom mooy yeex gee xam rek macha allah ndax bi mu fi ñëwee nekk ak ñun ba léegi yëg nañ ci sunu bopp gis nañ ci sunu bopp ndax kenn ku yaa ngi daw rek jëm ci yàlla te loolu yëpp mooñu ci dooleel ginnaaw yàlla yonent bi téyel ñu sunu ay njabootam yore daara ji tànqam luwul benn yoon nii nga ko gisee noonu la oyefe toll heure boo ko soxlaa guddi ak bëccëg lépp yombadal na la ko ñun daal sant nañu yàlla jigéenu quartier bi yëpp tam ñu ngi sant di gërëm ñëpp macha allah di ñaan tam ki nga xam ne moo dugal loxoom ci biir jàkka ji yal na ko yàlla fay. yàlla na ko yàlla fay di ñaan nag ñaan goo xam ne ñun quartier bi yëpp ñu ngi ko tibbee sunu xol ñu ngi ñaan imaam Sall mi yal na ko fi yàlla bette xéewal yàlla may ko fi këru boppam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa yàlla am na ko mën na ko yàlla na ko yàlla def ñun jigéen ñi tam ñu ngi jëlaat sunu sant ñun ñëpp di ko teg ci loxo soxna Rabiatu ak mère Sané ndaxte ñoom it ñun ay jigéen lañu waaye kenn mun leen a fay te nag wax sa mbaaxu moroom du yàq sa mbaax dara jërëjëf yal na yàlla saxal leen yal na yàlla fay leen wasalaam ba tey ci diwaanu Kër Massar Parcelles Assainies unité 6 ñu ngi taxaw ak suñu papa inakan Kane mi nga xamante ni moom yor wàllum comité ci juma ji nga xamante ne ni mën nañ ne drapeau l'islam yëkkatiku waat na tey l'islam gën na ndam tey ci diwaanu Massar papa big mii nii ak lii ban jàngan nga ci am. li ci jàngan mooy ñi fi nekk suñu yu yi. ban julli ci bi. di wax alhamdulilah rabbil alamin lii fi am cohésion rek sociale moo tax mu am imaam yi juboo ñun waa comité bi ñu juboo ba nit ku yàlla baaxal mu xam ne lislaam moo ko ñor mu jóg dugal fi alalam ba tax na kooku ñoo ngi koy sant di ko gërëm waaye nag Cheikh Omar Foutiyou def ne dañ ku nekkal yàlla yàlla nekkal la mu ne woon ko xëy am na ku des ku nekkal yàlla mu nekkal la nàkkal la kon nag waa yàlla na ko yàlla nàkkal lii yàlla nañ ko muuroo ñi fi teew ñëpp ku fi am aaju yàlla na ko yàlla faj lii lépp daal jàmm ju mat sëkk moo fi ne fii ci suñu unité bi jumaa ji moo fi nekk comité bi moo fi nekk ban fu ñëwee ba léegi kon nag lu waaye di wut nañ wut jàmm moom na ci bëgg a saxal te yàlla ñu ko yàlla dimbale ban àgg ci loolu am na imaam yu baax am comité bu baax ñu am solo ba lii ñu am tey yàlla teralee ñu ko ki ñu ko defal teraanga nag yàlla na ko yàlla teral àddina ak yàlla yegg yàlla boole ci borom fan yu guddi yi borom wërsëg yu rëy yi koo gis na ko bëgg ku ko dégg na ko bëgg lu am na ko yéene yàlla bu am ndog ci àdduna ba ñun ñi ñëpp ba yéen ñii caméraman yéen ñi fi nekk ñëpp yàlla yàlla defal sutura ba li ngeen bëgg seen àdduna yàlla na ko yàlla defal bi jaay seydil wujud allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam yàlla ngeen jëf kontaan nañ diwaan di diwaanu Kër Massar ban taxawaay la imam Sayid Sall am ci gox bi le ak nan ngeen def ba taxawal bi man maa ngi tudd Baba Kontey maay chef de quartier Unité 6 Imam Sall moom taxaw bi mu taxaw mënuma laa wax sax amul dimension parce que dafa amul am na fu mu ko amee am fu yem man personnellement chef de quartier dama koy gërëm di koy sant ak euh, acte bu mu defar fii initiative bu mu defee nii dañ koy gërëm di ko sant vraiment li fi def noonu mm, def lu am solo fi ci koñ bi lu am solo la fi daara ji macha allah mu ngi dox bu baax a baax jumaa ji mu ngi koy tekki yoon ñun ñëpp population bi kontaan nañ ci ñun moom kontaan nañ ci yàlla xam na ko waaw liggéeyu jumaa ji nii ndax durée bi mën nañoo wax durée bi ñaata at la durée wala ñaata weer la durée. non jumaa ji bii beneen façon liggéey la. bii beneen jàmm yàlla moo ñëw investir ci jaarale ko ci imaam Sall mu liggéey ko mais yàggul parce que ndox mi moo ko xawoon baare mais ba ndox mi jeexee. liggéey bi ñu vraiment assuré na ko teg na ko ci yoon man xam naa ci lépp lépp yaakaar naa fu mu dalee al la fin xam naa lépp waa ah, vraiment liggéey bi taxawut rafet na jaar na ci yoon damay ñëw aussi di gërëm kenn ci jeunes yi mooy Madické Fall mi nga xamante ne xale la moo nekk nële ànd ak ñoom guddi ak bëccëg mu ciy daawaka dima ko ñëw dañ koy gërëm di gërëm imaam Lo di gërëm imam Sall di gërëm suñu euh, bilal bi mooy Ibrahima Ba di gërëm koñ bi yëpp xale yi góor yi jigéen ñi mag ñi ak ñoom bisimilah ak jigéen ñi ñëpp ñu ngi leen di gërëm di sant man vraiment kontaan naa ci liggéey bi waaw. jërëjëf mbokku Saloum Actu yi amoon nañ mbégte bu baax indil leen li nga xamante ni moo fi ruusandi ci jullik ajuma tey ji tolloog ñaari fan ci weeruk avril ñu ngi woon fii ci diwaanu Kër Massar Parcelles Assainies unité 6 ñëw teewee ci jumaa ji nga xamante ni dañ ko doon ubbik bees waaye nag waa Kandji bi sant nañ bu baax imaam Sayid Sall mi nga xamante ne nii moom mooy imaamul akbar ci boobu boobule jumaa lii nag lañ leen doon amala tey ci jullik ajuma tolmeek ñaari fan ci weeruk avril laata loolee des leen ci suñu programme bii ngeen di xam ne fii lay daw ci Saloum Actu jërë ngeen jëf